ba tey ci seen scandale du jour de ce lundi 19 février 2024 vidéo bi dama bëgg ñu seetaani ko ñëwaat noonu mu nekk analyse yoo xamante ne moom moo ko def mu ngi noonu nee na pourquoi les internationaux di euh, euh, yàkkamti wala ñi nga xam ñoo nek Europe di yàkkamti à ce que président Macky Sall quitte le pouvoir c'est parce que dafa am lo xamantene ñun ñep mom lañuy xaar moy le gat le pétrole et et et gaz bi nga xamantene war nañ ko mëna exploiter donc du n'importe qui mo ñu wara jité encore une fois parce que dafa am ño xamantene dañoo jël seen bi teg ko ci suñu réew mi té li tax ñu teg bi ci seen suñu réew mi xam nañ ko ndax nak comme niko waji waxé am na ñoo xamante ils sont ils ont fait 40 ans au pouvoir ils ont fait 30 ans au pouvoir ils ont fait 20 ans au pouvoir donc bu ni intérêt pourquoi le Sénégal pourquoi nous nous et ce qui me fait le plus mal c'est que les sénégalais nous pour à ce que ñu Sénégal Nous dañ ciy nous avons nous ñu nous nous hey li ngeen di wax du Nous amu fi mais non non non on préfère même prendre des images ça n'existe même pas au Sénégal du Sénégal nous nous ñu Nous ko donc nous ngi et juste pour diir que sénégale war nañu yeewu bàyyi xel ci li nga xamante ne moom la ñu war a mën a exploiter te xam ne réew moo gis mu avancé réew moo gis tey financièrement mu stable bokk na ci am gaz ak pétrole te bu ñu ko foowee parce que du lu ñuy fowe te du président bu nekk moo ko mën a exploiter du président bu nekk maanaam moo mën a euh, euh, maanaam bu ñu ko doon njëriñoo à cent cent du ku nekk moo war a mën a gérer loolu noonu ba ñu njëriñoo ko à cent pour cent am ñaama bu ñu leen ko joxee cinquante pour cent duñ ko njëriñoo li nga xamante ne ñun ñoo ko moom yàlla daf koo wàccee fii ci suñu réew mi mu nekk suñu sens pour le développement mu nekk sens pour jeunesse bi am dara mu nekk sens pour ce Sénégal changé à jamais donc motax buñu bu ñi ñu tegg bët ñun ñi nga xamantene ñun lañ tegg bët war nañu mëna waxtaan juboo xol bu baax ci fi ñuy suñu tang ci li ñuy suñu réew mi ndax nag réew mi bu dee wax dëgg rek te yàlla tax